kon baat bi ci njëkk mooy xu xu ma ngay mel ne kuy ku xoogalaate xoo xoo mooy kan xam nga xoo en général bu ñu koy utiliser si anglais mooy pour connaître l'identité d'une personne maanaam boo bëggee xam nit ki kan la nga ne xoo xam nga si nit kase lañ koy boo boo ko déggee xamal ne réponse bi moom nit la mën a doon mënta doon leneen mënta doon euh, euh, mala mënta doon chose mënta doon place mënta doon leneen nit lay doon kon who boo ko déggee réponse bi ngay war a xamal ne automatiquement ki lay laaj moom si nit la jëm moom nit la mën a doon kon ñu exemple ñu xool who is the new president who is the new president who is the new president who comme ni ma la ko waxee sànq réponse bi mooy maanaam nit lay mën a doon parce que président bi moom nit la waaw man kan mooy président bu bees bi xam nga kan mooy président bu bees bi saa yi dañoo yàkkamti élection yi quoi moo tax moo <laughs> xam naa ne bi may xalaat exemple exemple bi ñëw sama xel mi quoi who is the new president kan mooy président bu bees bi waaw kan mooy président bu bees bi kon nga ne diw diw de mooy président bu bees bi par exemple euh, damay bañ a wax tur xam nga rek comme que mooy loolu euh, waaye baax na who is the new président kan mooy njiit lu bees li wala kan mooy président bu bees bi nga ne Pathé wala Demba waaw who are you talking to who are you talking to who are you talking to kan ngay waxal peut yaa ngi ci téléphone walla yaa ngi sa néeg di wax wala dara nit dégg ne la waaye kan ngay waxal kan ngay waxal nga ne diw laay waxal diw laay waxal who are you talking to bu neexee nga ne diw bu la neexee nga wax tur bi rek bu neexee nga ne I am talking to who are you talking to par exemple nga ne um, Demba baax na bu neexee nga ne I am talking to Demba who are you talking to am talking Demba or who are you Demba mooy sa tontu. waaw am nañ tamit what what. wat wat moom comme baatu wolof bi wat noonu lay sone waaye tekkiwul loolu mooy lan li en général buñ ko defee comme xam nga sànq nee naa la bu dee who um, identité personne la ñuy laaj maanaam nit tontu li nit lay doon quoi waaye bu dee wat mën naa doon mala mën naa doon loo xam ne um, amul bakkan comme ab taabal wala ab ab wala ab oto wala lu mel ne loo xam ne daal bokkul nit amul bakkan xam euh, moo tax wat la ñu utiliser si côté boobu comme euh, bu dee chose la wala animal xam naa ne la what is this what is this what is this what la bu boobaa mën nga ne ma mënu mu ne mënoo ne ma moom um, this is Modou non parce que Modou nit la kon mën nga ne ma this is a car lii ab oto la what is this this is a dog lii ab xaj la what is this this is a, pen lii ab big la what is this nga ne ma this is um, a bowl lii ab bal la kon yooyu ngay xool yëpp li ma tontu ci what is this um, benn doonu ci loo xam ne nit la lépp ay euh, mala la wala loo xam ne amul bakkan la kon ñu bàyyi ko xel noonu What have you done again? What have you done again? What have you done again? lan nga defati wala loo defati xam nga loo defati par exemple um, xam na laa ko mën a expliquer sax xam nga dara xew koo xam ne daal sa waay moom garaawaali rek lay def xam nga nit ñi coow li bëreeg yooyu ñëw na la saa yow lan nga defati what have you done again loo defati peut-être xam mooy loolu daal man mën naa nekk lu ne euh, da nga doon xeex wala danga ngaa xam joteeg nit fen wala dara daal mooy loolu am na ñoom ne garaawali rek garaawali gu mënti doon what have you done again loo defati xam am nañ tamit where where where mu ngi mel ne comme boo naan weer maanaam comme nga fóot ba pare di weer waaye rë bi day xaw a mel ne ku prononciation bi dootul bokk foofu ne ne wee wee wee wee comme day xaw daanaka nurook sax xale buy jooy wee wee wee comme liir buy yuuxu ko wee wee mooy fan maanaam boo bëggee xam ab bërëb xam nga bërëb bërëb euh, sàngam xam nga moom la ñu utiliser jàpp naa ne yéen a ngi bàyyi xel comme li ma leen waxoon li tax ñu koy wax WH question bu ngeen xoolee yi njotoo jàng yëpp moo nekk ci commencement bi quoi xam nga where where is the hospital where is the hospital hospital hospital hospital where is the hospital where is the hospital fan la hôpital bi nekk xam nga hôpital ab bërëb la xam nga hôpital ab bërëb la marché ab bërëb la jàkk ab bërëb la kër ab bërëb la maanaam fépp foo xam ne rek bërëb la ab lieu weer ngay utiliser where is the hospital fan la hôpital bi nekk xam nga ne ko ah boo demee ba ci kanam ne lee nga jaar dëgg fa xam naa dinañ indi leçon boo xam ne tamit ci nooy joxee direction la quoi comme bu la nit laajee nga di ko expliquer boo demee ba koñ ba na lee nga jàdd à gauche wala droite jubal xam nga yooyu noonu incha allah nañ ci indi leçon xam nga where is the hospital fan la hôpital bi nekk where do you live where do you live where do you live fan nga dëkk fan nga dëkk maanaam maa ngi dëkk par exemple Touba voilà um, I live in Touba for example where do you live I live in Dakar where do you live I live in Guédiawaye xam yooyu noonu yëpp bu la neexee nga jël sax sa quartier joxe réponse au def de manière générale nga joxe euh, une réponse plus where do you live when when when when mooy kañ xam kañ kañ kañ la dara xew when xam when when did you arrive when did you arrive when did you arrive when did you arrive kañ nga yegsi par exemple um, euh, nit demoon fenn wala nga ñëw fekk nit si kër gi nga ne ko saa yow kañ nga yegsi xam nga kañ maanaam ban waxtu wala ban bés wala mooy loolu daal maanaam mais kañ lay tekki xam nga kañ nga yegg si nga ne ah, man démb laa ñëw I arrived yesterday démb laa yegg si um, I arrived an hour ago ah um, bi ma ñëwee léegi am na waxtu I just arrived maa ngi nii di soog a yegg si I just arrived I just maa ngi nii di soog a yegg si xam nga when did you arrive mooy loolu kañ nga yegg When does the movie start? When does the movie start? When does the kañ la film bi di tàmbali xam nga par exemple euh, euh, en général na laa ko mën a waxee sax comme par exemple buñ gën a dellu gannaaw tuuti avant YouTube yeeg yooyu du bëri nga xam ne daan nañ publicité ay euh, film ci RTS wala yu demee noonu ne ah bii kat heure sàngam lay am peut être nga ñëw xaw a teel nga ne ah ban heure la film bi tàmbali what time oh, la neexee nga ne what time does the movie start as well boobu boobaa nga ne wan ban bi di commencé waaye bu la neexee nga ne when does the movie start when does the movie kañ la film bi di tàmbali bu la neexee tamit mën naa nekk waaye what time bu fekkee da ngaa bëgg utiliser what bu boobaa time ngay wax what time does the movie start kañ la film bi di tàmbali movie mooy ab film xam nga film when does the movie start why why why why lu tax why lu tax why do dogs and cats dislike each other why do dogs and cats dislike each mooy ab xaj wala ay xaj fi daam dogs cats mooy ay muus mune ne lan moo tax xaj ak muus bañante lan moo tax xaj ak muus bañante why do dogs and cats um, uh, cats dislike each other why do dogs and cats dislike dislike mooy loo xam ne bëggoo ko I dislike coffee for example waaye duñ koy faral di utiliser lu bëri maanaam mais boo ko gisee mooy dislike xam nga like kese boo xoolee baatu dislike am na like like mooy bëgg I like coffee maanaam damaa bëgg coffee I like um, um ceebu jën damaa bëgg ceebu jën I dislike ceebu jën mooy bëgguma ko bëgguma ceebu jën waaye en général dañ naan I don't like ceebu jën I don't like coffee waaye pour ñu xam ne rek baatu dislike bi euh, mooy maanaam loo bëggul contraire bëgg quoi waaw. Why did he skip school today? Why did he skip school today? Skip mooy tëb xam skip this tëbal lii. xam nga skip this page tëbal pass bi skip school mooy par exemple nga war a jàngi demoo jàngi xam comme tey bisu tey nga tëb bis bi <laughs> maanaam daal jàngi woo daw jàng why did he skip school today peut-être da ngaa feebar wala da ngaa bëgg a tappale rek xam nga why did he skip um, school today lu tax mu daw jàng tey wala lu tax jàngiwul tey xam nga why did he skip school today how how how mooy nan wala naka la manière na bi mu koy defee boo xoolee xaw fii peut-être xaw naa wuuteeg yeneen baat yi tuuti waaye ba léegi am na W am na H W bi da ko terminer rek waaye ci la bokk tamit boo xoolee am na ñu naan ci la bokk yi mais li ñu gën a bëri daal ci la bokk waaw ñi gën a bëri maanaam li ñu gën a euh, d'accord ne ci la bokk moo ëpp kon xaw mooy la manière manaam nan naka xam how how do you change the batteries of the remote control how do you change the batteries of the remote control how do you change change mooy changer how do you change nan ngay wala nan ngay changer remote control mooy commande télécommande xam nga remote mooy maanaam distance quoi xam nga remote mooy loo xam ne jegewu la léegi control nga koy nga koy nga koy contrôler quoi maanaam euh, di ko manipuler yooyu léegi loolu nga yor maanaam commande bi ci boppam moo tax ñu tuddee ko remote control parce que du day nekk télé bi day nekk ne wala lu mu mën ci doon euh, am na ay jeu yoo xam ne day am commande yooyu mais ne la lay nekkee nga yor commande bi fii xam nga kon sori na la moo tax remote bi ñëw loo xam ne remote mooy loo xam ne daf la xaw a jegewula quoi nekkul sa wet nii remote control nga koy contrôler à distance how do you change the batteries batteries ay batterie batteries batteries how do you change the batteries of the remote control nan ngay changer batterie commande bi how is that possible wala how is this possible that wala these maanaam that bu fekkee ne um, mbir mi xaw na la comme ma nga ne nga koy joxañ daal par exemple à quelque un mètre deux mètres wala xam nga that wala bu dee these mooy loo xam ne mu ngi nii say bët xam nga léegi nga ne waa loolu nan la mën a nekkee loolu nan la mën a nekkee loolu nan la mën a nekk how is that possible man expliquer ma loolu man mënuma ko comprendre nan la man a nekkee how is that possible how much how much how much lii zaaru dérivé la boo xam ne maanaam dafa jóge ci how lan moo tax ñu xam how much am na beneen boo xam ne how many la maanaam boo bëggee laaj ñaata wala loo xam ne mënuñu ko compter comme lu mel ne ceeb lu mel ne suukar lu mel ne diwlin ndox genre yu demee noonu daal wala ay ay ay sentiment comme how much do you love me nan la sa mbëggeel lu si man xam nga mbëggeel mënoo ko compter wala genre yu demee noonu waa ah, how much do you hate me walu maanaam bañel gi oh, genre yu demee noonu nga xam ne kenn mënu ko compter moom la ñuy wax uncountable nouns in um, uh, en anglais bu boobaa how much nga utiliser how much ñu indi ci exemple How much sugar do you want in your coffee? How much sugar do you want in your coffee? How much sugar do you want in your Par exemple yaa ngi defar café wala am na ñoo xam ne café yi dañ sukkar yi dañ koy bëgg mu saf am na ñoo xam ne tuuti rek am na ñoo xam ne dañ koy naan sax sans sukkar léegi nga ne ko ah nan nga bëggee sukkar si si sa café gi par exemple bëgg mu saf wala tuuti wala lu bëri yu a xam how much sugar do you want in your coffee just a little bit tuuti rek just a little bit um, sweet par exemple suwit mooy mu saf suukar maanaam lu lu lu saf suukar ehm, a lot wala lu bari a lot xam nga how much sugar do you want in your coffee I don't want any sugar bëgguma si suukar xam bëgguma suukar how how much does this cost bu la nee bu dee da ngay laajte prix tamit how much nga utiliser how much does this cost lii ñaata lay jar bu dee prix prix bi ngay laajte bu la neexee bu dee da ngaa bëgg a baatu prix ma ne what is the price of this what is the price lii prix am ñaata la xam nga bu boobaa bokkul ak how much does this cost bu boobaa prix amu fa utiliser baatu prix da ngaa bëgg a laaj euh, njëg gi bu la neexee nga mën ngaa utiliser ñaari phrase yooyu how much does this cost lii ñaata lay jar wala what is the price of this lii lan mooy pireem lan mooy njëgam how much does this cost lii ñaata lay jar man nañ tamit how many comme nee naa woon leen how much baat yoo xam ne euh, euh, ci anam yoo xam ne luñ mënta compter la waaye bu dee how many loolu mën nañ ko compter how many moom la ñuy wax countable nouns in English how many ñaata xam nga ñaata nit ñaata pom ñaata orange ñaata kilo ñaata uh, litre xam nga loolu moom bu la benn kilo ñaari kilo ñetti kilo benn nit ñaari nit benn pomme ñetti pomme xam nga how many how many how many apples are on the table how many apples are on the table how many apples are on the table how many apples boo xoolee fii baatu apple bi dafa am s boo jëlee app how many baat bi ñu ciy teg mooy li nga bëgg a xam ñaata la mais à chaque fois da nga koy day am s how many apples how many chairs how many tables how many pencils how many cars baat bi ciy tegu day doon pluriel à chaque fois how many apples are on the table ñaata pomme ñoo nekk ci table yi même bu nekkee ne réponse bi benn la nga ne there is one apple benn pomme moo fa nekk mais euh, question bi à chaque fois day doon pluriel how many apples there is one apple there are five apples is no apple xam nga um, wala there bu la neexee xam nga léegi kon euh, foofu dañuy gis ne comme ni ma ko waxee woon sànq liñ mën a compter moom la ñuy utiliser how many how many apples are on the table ñaata pomme ñoo nekk ci table ñu jeexale ko ak bii nii muy how many kilograms of sugar have you bought xam nga ne woon naa leen suukar mënoo ko compter waaye fii nii boo xoolee dama indi baatu kilogramme moo tax bu boobaa doo mën a ne how much kilogramme noonu non how many kilograms of sugar ñaata kiloy suukar bu boobaa da ne benn kilo ñaari kilo ñetti kilo loolu mooy différence bi booba kenn da ngaa bëgg a wax suukar kase mu ne how much sugar have you bought mais fii dañoo bëgg a am ñaata kilo nga jënd how many kilograms of sugar bu la nee how many kilograms of rice rice mooy ceeb xam nga how many liters of water or how many liters of oil ñaata um, yi diwlin wala ñaata litres yi ndox waaw bu boobaa nekkatul ne maanaam mbir mi lay mais par kilo yi la ñuy bu boobaa xaw ma ni lay doon day am solo moo tax ma indi exemple bi pour mu euh, euh, euh, xaw a indi différence bi ak bu dee danga ngaa utiliser how many ak how much how many kilograms of sugar have you bought ñaata kilo yi suukar nga jënd xam nga how many kilograms of sugar have you bought. waaw kon mbokk yi mu ngi noonu rek comme. ni ma ko waxee woon sànq leçon boo xam ne am na solo lool lool xam naa beneen yoon dinaa indi beneen euh, façon bi nga xam ne moom la ñuy poser question ci anglais comme ni ma la ko waxoon ñaari façon moo am how many WH euh, question mu naan how many WH question ak yes or no question WH question bi moom laa leen expliqué noonu képp koo xam ne am na si euh, loo xam ne leerul nga bëgg laaj wala dara commentaire yaa ngi noonu partagé leen vidéo bi comme ni ma ko waxee tamit bu dee da nga daan télécharger ma lay ñaan nga bàyyi télécharger bi di ko seetaan. di partager xam parce que noonu ngeen ci mën a jàppee waaw léegi après beneen leçon bi incha allah dinañ ko préparer jërë ngeen jëf.